mel ne fi mu doon joué fi bi day daw sa waay xaw ma ku la digal lii mais yàq nga sa clip bi xaalis bu bëri nga financé ko ay millions def sa lii jël ay o dafa xoolal tëddi dafa am seenu doq am seenu loxo am seenu ween am seenu jumbax am seenu tànk yow nga jël garab yu diis yoo xam ne ci doq loo war a dem biisu da doq nga ne nga làkk ne dem ci doq gi mais da ngay def biisu da tet wengal ko teg ci nag titi yaa de xasuma la de mais sa clip koo yàq xaw ma ku la digal lii mais rey nala la nala na la ah da ngay dem nga seeti Viviane sama yaay ji barki Serigne Babacar si nga jëmbale ci moom xool na muy defee clip soxoroo ma de mais yow biisu da doq nga jël def ko biisu da tet waaye on est dans quel